alors Mamour Ibra Kane mënuma toog ak yow te duma wax ci presse euh, suñu confrère Serigne Saliou Gueye euh, est placé en garde à vue ñu koy topp pour outrage à magistrat ak euh, usurpation de de de fonction am na bëri na journaliste aujourd'hui qui se retrouve en en en les militants de Ousmane Sonko Ousmane en 2012 pour un oui pour un non il y avait des éditions spéciales euh, pour alerter sur les dérives de Abdoulaye Wade dëkk bi day tooj ñun media yi on est corrompu euh, par le pouvoir de de de alors man je le je disais à Ngagne Demba la dernière fois ma ne ko xam nga dafa am phénomène bu am 2012 qui nous porte préjudice. dafa amoon ñoo xam ne ñu ngi woon ci espace médiatique bi ñu bari ci ay journalistes qui se sont retrouvés subitement du jour au lendemain dans les rouages du pouvoir avec le le le président de la République et donc mu nekkoon ñoo xam ne ils étaient très critiques vis-à-vis du régime de Abdoulaye Wade et les Sénégalais ont découvert benn pratique da ngay nekk journaliste encagoulé jàppale benn candidat et ñu ngi koy noté sax ren sax la gën a metti euh, après di di di di di agir population bi foog na tu agi comme un journaliste fekk yow tu as une mission politique aujourd'hui encore mu mel ni tamit am na journaliste yoo xam ne ñu ngi investir sur des candidats euh, voilà candidat bi lu mu wax baax na euh, dañ koy jàppal tànk euh, ba bu amee journaliste yoo xam ne sax nanguwuñu démarche boobu ils sont insultés catalogués même par leurs confrères alors ñun ñoo deful suñu liggéey ñun ñi nekk di pratiquer actuellement walla yéen Euh, ñi nekkoon fii 2012 2012 euh, j'ai une excuse j'étais pas j'étais pas trop <laughs> aux commandes. yaa ngi fi woon de nga dalal ma ay canal info news ak. yaa ngi fi woon mais wala ñi fi nekkoon 2012. 2000 2000. ba 2012. Hmm. wala ñooñu ñoo trahir. Hmm. Euh, les sénégalais ñooñu ñoo nax sénégalais yi. waaw xam nga d'abord. du may bugguma am posture donneur de leçon mais danga may permettre balaa may wax ci métier journaliste benn bi man damay condamner arrestation systématique jàpp tëj jàpp tëj jàpp tëj bi may gis fan yi ci à l'encontre des journalistes Serigne Saliou mi nga tudd ci la bokk Pape Ndiaye le jeune Pape Ndiaye. ci la bokk ak ñeneen ñoom Babacar Touré Pape Alé Niang journaliste jàpp tëj jàpp tëj jàpp tëj xam nga may mun a pour man mënuloo sargal Babacar Touré ndem si yàlla Babacar Touré yal na ko yàlla yërëm nga tuddee ko maison de la presse nga sargal ndem si yàlla Mame Less Camara yal na ko yàlla yërëm nga tuddee ko CESTI fi ñuy tàggatee journaliste yi CESTI Babacar Touré maanaam bu ñu nee journalistes yi am nañu kër ci Sénégal mooy maison de la presse bi nekk ci corniche bi ngay jàpp journaliste jàpp tëj man damay invité d'abord régime bi nekk en place que mu qu'il se di fàttali kàddu yi nga xamante ni président de la république yëkkati woon na ko duma tëj journaliste kooku benn la ñaareel bi ça ne veut pas dire que presse bi amul liñ ci war a xoolaat mais du ma ci sori pour la bonne et simple raison bu ma ci soree dafay mel ni maa ngi joxe ay leçons dinaan moom am na ci lu muy yëngatu mi ngi joxe truc euh, euh, des leçons mais press bi li ñu war a xoolaat on tous d'accord mooy formation bi formation bi non seulement ci lekkool bi waaye du foofu rek formation bi dafa war a continuer ci rédaction yi c'est pour ça que mën naa comprendre sa question bi bi nga ma joxañee ne est-ce que du ñun ñoo deful suñu liggéey man li may wax mooy effectivement il faut cultiver la transmission lu tax keroog bi Mame Less Camara génnee àddina suñu naatangoo yi tànn ma ne naa leen waxal ma porte témoignage wax loo xamante ni lu am solo te moo gisoon ko ci Maam Les dafa nekkoon ku am générosité à transmettre son savoir transmission bi ñuy ubbi Walfajri Sidi Lamine yàlla na ko yàlla yërëm moom tamit jox ko Walfajri mu dem tànn ñu am na ñoo xamante ni sax ñu ngi doon jàng ñun ñu ngi doon génn de l'école sii di nekkoon maam lees man ma jox la sama rajo pour nga doxal ko nga ne ma xale yi ngay nga koy jox lu tax doo jëm jëli journaliste yu mag yi maam lees ne sii di puisque danga ma jox pour ma doxal man xale yi laa wóolu ci mbir mi mu def un pari sur la jeunesse te yàlla may ko si ndam yàlla na ko yàlla fay amiin xaare ko àjjana moom maam lees Kabara loolu la ñu war a retenir comme philosophie aujourd'hui ci dans le métier ñaareel bi xam nga état bi lu tax pour man jàpp tëj bi ñu war ko éviter xam nga journaliste amul lu gën a bon en tout cas li gën a ñaaw ci journaliste comme daan que ñu wax jalgati na yoon respecté wul charte yi Par ses pairs. Par ses pairs. CORED, travers son tribunal des pairs, dirigé par qui Ibrahima Souleymane Ndiaye journaliste bu mag bu ñu respecté lu tax bu problème amee citoyen am problème encore que un citoyen c'est autre chose mais état bi gis loo xamante ni xëy na lii nii dafa jàpp ni warul deme noonu te état bi moom moo samp CORED samp le tribunal des pairs lu tax seen réflexe bu njëkk lu dul du adressé wu à ce tribunal des pairs moo gën jàpp tëj bi mais damay dem de delà balaa ñuy wax corporatisme jàpp tëj bi dafa quand ëpp jéggi dayoo ci réew mi démocratie mënul méngoo ak loolu je pense que mooy li ma doon wax na nit ñi del ci seen xel waxuma que journaliste war na def n'importe quoi tout ce qu'il surtout bu fekkente ni dafa commettre benn délit boo xamante ni jotewul ak liggéeyam ak liggéeyam mais si je comprends bien la plupart des journalistes yi ñuy wax ci seen liggéey la lañ leen jàpp tëj leen mën nañu wax loo xamante ni arrangé wul nguur gi mais war nañ ko mën a nangu c'est pas parce que que forcément may jàpp journaliste bi di ko tëj c'est valable pour n'importe quel autre citoyen en tout cas les les arrestations systématiques yoo xamante ni ci charte F24 dañu jàpp ni dafa violer les libertés individuelles et collectives